doore gu ñu am ci politique. dama ni la. Hmm. xam nga déjà coalition bi nga xamante ni yaakaaroon nañ ni euh, <laughs> ndeysaan damay dégg ñu naan waaw cinquante cinquante pour cent yi soppeeku na. waaye nee nañ ñu bëri won nañ leen ginnaaw. waa léegi ñoom xam nga nu ñuy xamee ndax wan nañ ñu gannaaw wala déet. wan nañ leen benn doyu leen. Ah. waaw dañ leen di ñaan ñaareel bi. xam nga wan nañ leen arena. Ah. ci àdduna ba mu daj. kaay leen. ngeen ñëw jàppale ma wala ngeen jàppale seen bopp ñu soppi Sénégal. Hmm. nga ni nangu naa ba soo ma woowee ci stade man maay dagg billet ñii dagg billet mille francs ñii dagg billet cinquante mille. ñii dagg vingt cinq mille. Hmm. man ma tolloog cinq mille francs yónnee leen cinq mille francs. Hmm. keneen keneen noonu. mais sama waay ñu wëlbatiku ne collecté nañ cinq cent millions xale yi ne ko doyul ñu ne nañ def carte bokk naa. xam nga fu ñu jëm. fa lañ jëm un milliard wala deux milliards. ci leve de fonds bi. ah fa la ñu jëm. mais am nañu jàpp ne da ngeen a déguisé woon euh, arena bi rek même Copper Express bi ngeen lancé da ngeen ko déguisé rek mais génne ngeen xaalis ba dugal. bu yàgg benn góor Youssou Ndour woyu ko da koo woy. Hmm. waaye da ko dégg ci magum wolof. Hmm. walla mag mu xam àdduna. mooy góor gaak mbaam ma. waaw. kii woy na ko. Youssou Ndour. kon mooy lii nga wax rek. tey bu buñ ne woon fukki million la ñu am. Hmm. ñu xàqataay ñu. xam nga lu ñuy wax. ngeen dajale terrain bi ba mu fees dell arena ba mu fees amu leen lu dul 10 millions. Pape Djibril Fall commencé na ko nee na sax euh, kaar ya fa doon ñëw yéen a ko doon joxe di saraxu nit ñi ngir yàlla pour ñu ñëw. waaw kon nit ñi nangul nañ ñu saraxu yooyu. taalibe kat bu xëyee di saraxu dafa yaakaar ku ko yalwaan ku ko ku ko sarax. waaye ku xëy ku xëy. Hmm. di saraxu ji. moom mu nga xëy di saraxu ji ba toog ca naaju Tàmbaawa. toog en plein air ci baawu jaaxle bañ doon wax Ousmane Sonko ba mu ànd ak ci ca Médina te ma ànd ak ñoom ba ñu daw dugg ci benn kër pour ñu sauver leen. ma des ci biti. baawu jaaxle boobu ñoom moom lañ toog léegi nag moom dama leen di ñaan rek lu simple nañu woote waxuma waxuma arena de arena mm. gudd na mais nañu def levée di fonds ñu seet Sorano wala ñu seet Grand Théâtre ñu jox leen ko. ñu ne kuy ñëw da ngay indaale deux cent cinquante francs hmm. ñoom laa wax de. Hmm. nga ne kuy ñëw day indaale deux cent cinquante francs hmm. ñu xool ba xam ku mën na def. ñoo ko wax ku mën na def. gis nga buñ nee waa Kanel ndox maa leen di bëgg a rey. waa Kanel jox nañ leen huit milliards te huit milliards yi. pare guñu dafa door. état am na leneen lu muy def lañ fa yóbbu ci ay daare mënuñu laa wax nu mu toll. Hmm. mënuñu diaboliser waa waa waa waa waa Kanel mënuñu ko dañuy sonn rek. Hmm. Mohamed dañuy sonn rek alors Ziga bi ñu organiser ko. ci anam bi nga xamante ne jur na polémique ñu bari jàppoon ne Ousmane Sonko jeunesse bi wan nañ ko ginnaaw. mais aussi ñu bëri jàpp ne contexte bu mu amee ak lay xew ca Bakel ak jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy dund waruñu waroon nañu mën a tal leneen lu dul di woote am na sax ñu ko duppee xawaare ca Dakar Arena. Mhm. d' abord jeunesse bi ñu jàppoon ne dañoo weddi Ousmane Sonko tey ku gis Dakar Arena ban jàngat la ci mën a def ci wàllum politique. xam nga kañ lañ ko doon tuddee xawaare. Hmm. mooy ñu ñëw usmaan Sonko nekk fa di waa koñ bee comme ni ko yenn lideer yi di defee. bu ñu jaaxlee discours bi imaam tàngal ceeb rek bi eggale discours bi. Hmm. bu fekkoon ni Ousmane dafa ñëw naan Sonko yee Sonko yee. ñu ne waaw bu fekkoon Ousmane dafa ñëw waa koñ bee kaay leen seetaan seen baay ñëw na ñu ne waaw mais Ousmane du wax wax yu doyadi hmm. wa si linnaasi nan moo ko yëkkati ba mu ñëwee ñetti point la tudd rappeler nit ñi wax nit ñi fi ñu jëm wax lu tax lii mais tàngal ceeb la discours bi waaw ko waxoon na lépp fi mu ne lu raw xooñ sax lañuy ñuy créer parce que fi ñu jëm fii ak mën nañuy discours discours boo xamante ni tàngal ceeb la. parce que dañ fay fekk yàqu-yàqu vingt ans. Hmm. Mohamed. waaw fekkuñu fi yàqu-yàqu douze ans yàqu-yàqu vingt ans lañu fi fekk. te dana leer de. Hmm. dañ naan dafa métti rek. dana leer. dina leer dana leer nañ ba pare nit ñi wëlbatiku teg ci seen bi teg nit ñi commencé nañ ko sax gis nga. Hmm. état yoru loo xamante ni day yëkkati poche Mohamed. def ko mu fees. Hmm. état mën na woon Mouhamed yoon wu muy jaar pour enrichir wala yoon wu muy jaar pour dund mais am na loo xamante ne nag. am na loo xamante ne nag. alors suñu gan tey di imaam Khalifa Ababacar Ndiaye moom itam bokkee ci Pastef. ñu seq waxtaan daanaka poñ actualité bokk na ci li nga ne moom mooy waxtaanee nañ ko législative yi ñu ma lu jëm ci jàppum Bougane aussi dégg ngeen jàngat bu am solo bi mu ci def Ousmane Sonko woote Ziguinchor imaam dañuy des si Ziguinchor bi ñu bëri jàpp ne Ousmane sonk li mu waroon a wax wax na ko wax ji dafay bëgg a bëri nag yaa imaam saa su nekk ngay woote di wax nga nekk premier ministre ñu fal la pour nga war a defar Sénégal <laughs> mais nga bëgg ko kal ci ay meeting tamit di wax rek dem ba léegi amatoo la wax ngay tàngal ceeb imaam xam nga foofu dinaa la tontu tontu bu gàtt mooy du Mouhamed lañ la tuddee waaw alquran mhm. la mu waroon a wax yépp résumé na ko ci Fatiha mhm. lii may wax boroom xam-xam yaa ngi may dégg kenn du ko weddi la mu waroon a wax yépp ci comportement nit ak jaam bi nu mu war a mel digganteem ak boroomam. Mm-hmm. résumé na ko ci Fatiha. photocopie yàlla. Mm-hmm. résumé nañu ko ci xul wallaahu ahad. Mm-hmm. léegi xam nga lu des. comme que résumé na ko ci Fatiha lu fa Bàqara di wuti lu fa Ali Imran di wuti lu fa Alam di wuti c'est la répétition la répétition est pédagogue. réew mi ñu toll. maanaam wax mënul ñàkk. faaw réew mi ñu toll. Ah. toujours da ngay rappeler nit ñi. fa zakkirin nafaati zikra rappelel rappel gi ngay rappelé day jariñ ki nga xamante ni bëgg na mu jariñ ko mais am na ñoo xamante ni su mun bugg mun amul foofu laa yàqiloon dañuy jël seen nopp jël baaraam dugal ca sakk duñ bëgg a dégg li Ousmane di wax waaye bu ñuy seet li ëpp ci Sénégal nañu ne Ousmane a ngi wax. ñu mais Imaam koo xamante ne depuis 2017 sax bi ñuy falee parti bi lu mu waroon a wax yëpp wax na ko. waaw des fois nit ñi dañuy indiwaat discours yoo xamante ne bi mu ko tenir ak léegi def na daanaka 5 ans. waaw est tey bu demee ba ngànk réew mi nekk premier ministre. waaw ak guuta gi muy wax ne fa la réew mi nekk Imaam est ce que jotul mu concentré wu ci liggéey bi tamit wàññi communication bi. déedéet. da ngay surtout bi am na ñu mel ni yéen am na ñoo xamante ne tey euh, bu ñu waxee askan wi dinañ leen déglu. moom war na mën a concentré wu ci li nga xamante ne moom mooy jëmale Sénégal kanam. que wax ñu bëri mais ba ñu ba ñu toogee 6 mois yi wala 7 mois wala 8 yi ba léegi ñun dañuy wax rek liggéeyuñu. déet liggéey kañ am na mais nag. liggéey dañuy gis ne tamit liggéey am na mais wax ji tamit mu ngi ci côté bi. waaw mais wax mënu ñàkk Sénégal wax ak jëf. moo ko yor wax ak jëf moo ko yor. boo waxul doo jëf. boo waxul doo jëf. boo waxul amul looy jëf Mouhamed. Hmm. nan lañ lay joxe lu toll ne réew moo xamante ni quatorze ay ñii ne dix huit mais dix huit millions habitants hmm. nga wëlbati ku ne wax ji may wax waruma koo wax dama war a noppi déedéet Ousmane waxatul de Ousmane ba muy wax dëgg. Hmm. ah bokkut ak léegi. non non non non xam nga ci lu mu nekk fi ne nii. xool Sénégal nuñ koy suqale te loolu si nga Giga Meeting Dakar naa moo ko moo koy mën a jëmmal. romb na foofu démonstration de force la woon pour won ñi doon wax ni xam nga léegi dootoo déggati <laughs> Ousmane du Diomaye dootoo ko déggati ak seytaane yi doon jóg di ruuxale naan Ousmane dafa kii dafay fere su Diomaye da koy wengal bët beeg dafay nangam yéenewu ko fauteuil beeg yooyu wax yooyu randu na hmm. wax yooyu randu na léegi ay jooy moo leen dese ay jooy naan talaal xaw ma nu mu ko waxee sax ay talaal xaw ñi naan ko yàlla nga ak yu kenn xamul kan moo ni Ousmane yàlla la te moom madduhun wa zammun fi makanin wahidin min wahidin li wahidin ajabaani bërki démb la toog fii tagg Ousmane ne bàyyi naa Amadou Ba hmm. léegi nga wëlbatiku mais li nga ko tëjal bunt yi moo tax mu mere leen waa mani la Ousmane li mu wax lu leer la. te yéen it yéen ni ngeen tëjee imaam imaam Pastef ni ngeen tëjee bunt yi dafa métti trop waaw di wax ak yow. Mhm. man mën naa ne la dañ ma tëjal bunt lu tax dafa tax ma découragé. est-ce que gis nga man ñu naan ay post wala lenn. wala ñu mhm. dugal ma ci lenn. Mhm. déggoo ko fenn. déedéet ma tax a découragé bu ñu ngi la doon xaar sax si liste député mais daf ma tax a bàyyi. wala boog ña ñu dugal ci liste maa leen gën. wala maa leen gën a bëgg procès bii nga xamante ni moom la ñuy def lu ñor wadd Hmm. lu ñor wàdd. mais ñu bëri ñu ngi la doon xaar yow itam. sa dugub assemblée nationale. te xam naa ne aussi bi si génnee gisoo sa bopp. nekk na lu la bett déedéet man tollu ma foofu. ñi xam dencal mbaxuus fa neen foofu.